nee na ma bii yoon mën a ko def ma jàpp ne bés bu ma terminé ba cay topp moom cinq lay doon te kenn dootu ko mën a soppi kooku it muy avancement bu mag ndax wax dëgg yàlla Afrique bu ngeen di seetaan télé yi fitna gi li koy indi ñaare mooy ku toog ne du ma dem président Macky Sall nag ne man bés bu ma toog toog naa bu ma faluwaatee ci cinq ans la yem waaye mu rax ci dolli jël ay décision yu am solo. ne assemblée nationale dama bëgg ñuy gën a saytu sama liggéeyu gouvernement ndax ñu gën a gën a baral mbir mi gën koo accélérer. ma bëgg aussi am ci décision bu leen itteel yéen surtout yi nga xam ne dañu ne ci mool bi mu ne dama bëgg environnement mu doon droit droit à l'environnement ñi nga xam ne dañu ne ci tefes gi di gis seen kër yi ndox mi di ko yóbbu ñi nga xam ne dañu ne ci dëkk yoo xam ne dafa am liñ naan minerai maanaam suuf si ci suuf dafa am alal moo xam or la lu mu doon ñooñu aussi dinañ ci am sañ-sañ loolu lépp la bëgg bu bés baa ngeen mobiliser wu dem ne waaw ci changement yooyu luñ leen wax leneen lu dul lii ma leen expliqué amut waaw pour jàppale ko waaw pour delloo ko njukkal ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def na doon waaw ba mu fees dell ci kees waaw waaw kon nag loolu it day bokk ci liñ leen di dénk bu ñu ñëwee toog ak kilifa yu mel ni yéen responsable yu mel ni yéen ñoo xam ne ci seen ñaq ngeen di dund il foog ñu leeral leen yooyu bu ko defee bu bés baa kenn bañ a des ku ci ne dem xam ne la ngay def sa bopp nga koy defal sa ay doom nga koy defal sa ay sët nga koy defal